ñoo ngi lewaatoo wala boog ñoo xoolante ci biir bët Alaaji Maan ak Waly Simal lamb jaa ngi noonu. Alaaji bi. Waly bu Simal moo ngemboo ngembul vax bi. la nag. la. daa dëgër. lamb jaa noonu. mais man li ma gis li ma gis Ndangane Samb mosuma koo gis fenn. Eh, fii làmb ngi fi jigéen ñu bëgg làmb. làmb ngi fi ma ne la Ndeye Fatou Adama Diallo day way ñuy fecc di ko sànni xaalis billaay làmb ngi nii. li dañ koo namoon. wallaahi li mooy làmb. laaj man waale bu semal final poids léger. ñoo ngi noonu. waaw waaw. ngi noonu. Sénégal dañoo namoon làmb. amateur yi na moon làmb supporter yi na moon làmb mbër yi tamit na moon làmb jàkka jàppante nañu ñoom ñaar. wante reporter yi tamit dañoo na moon làmb. bilaay waxati ko. alaaji maan waali bu simal. mooy final léger bi. final léger baa ngi noonu. mise bi un la. léger bi leen di séddale cinq cent mille. ah yéen a ko déggoo mbokk yi. bi ñu séddale leen un million. loolu am na solo Mbaye Babacar. loolu am na solo. waaw waaw. Alaaj Faye. Alaaj Maam. Alaaj Maam. ak ki nga xamante ne bii mooy Waly bu Simal. Alaaj Maam Waly bu Simal. combat bi ndax final la. déedéet mënut a yomb sax nag Mbaye Babacar. final la kenn du ko wanteer. dañuy jël seen temps di ko cons ndànk-ndànk. doo bëre ba ñëw ba fii di ko asaaloo. déedéet waay. waaw waaw. mbër bëre. maa nga noonu kàggu. waaye mbër bëre Mbaye Babacar. noo daa gaañu ci loxo. yaa ko wax. noo champion la. wante daa mën a ñàngal nag. alaaji man. ak ki nga xamante ne mooy Waly bu Simal final poids léger fii ci Ndangaan Samb waaw waaw Abdou Sène nuyu naa la Serigne Dia ma nga ca marché du Béthio. alaaji man taw na jël ko. attention plaquage ba. ay tul da mbot de. ay tul ay tul da lay mbot. da lay mbot alaaji man alaaji man alaaji man. alaaji maam est dina ci génn na tànk ba. ñëwaat nañ Alimaam moo koy saxal tànk bi. da koo da koy jëlee tànk bi mu ko. Alaaji baa ngay daw ca côté production ma fàttali leen ko tey lundi la le 29 lamb fi mu toll nii amatul sandeg dimanche mbay Babacar. tey jour ouvrable la wante gars yi dañuy seeta dañuy consommer lamb boo ñëwee fii ci Ndangaan foofu sànni mbaat. dama la jag jag waaw. tey lamb yi am jaa ngi noonu. waaw waaw. Ousmane Faye fële ca Argentine. dam nuyu naa la. suñu gannaaw waale nga oh, koy vidé oh. na ko daan na ko waali daan na alaaji si man oh. daan na alaaji man da koo plaqué daw moom da koo plaqué oh waali daan na alaaji man oh doo la doxul waay